ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin muy tombeek euh, di ndorteelu ko euh, l'examen bi di CFEE euh, ak entrée en préfet bu département bu Diourbel mu ànd ci ak responsable yi ak acteur yi yëngatu ci wàllu njàng njàngale fii ci njaareem daal dina wër yenn ci ay centre d'examen ngir xool anam gi nga xam ne la ñu daal di amale boobu la examen moom autorité préfectorale bi daal di nay am mbégte bu baax a baax ci anam yi nga xamee ne la ñu daal di doore yi la épreuve di sant yàlla yenn ci ay centre examiné entré en sixième euh, fii ci commune bi Diourbel ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin examen yi ñu ngi déroulé en tout ñu ngi koy jaarale ci yoon ci wàll yëpp nag ci wàllu élèves yi ci seen teewaay waaye également ci ñi leen di encadrer ak ñi leen di at mi nag lu yees téeméer ak fukki centre examen ci académie régionale bi amal nañ ci lu ëpp vingt mille candidats yoo xam ne ñoom ñoo war a composé ci examen yi ci région bu Diourbel candidats yi ñaar fukki junni lañ ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn jigéen ñi nag ñoo ëpp ndax fukki junne ñaar lañ ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn Euh, ñu góor ñi nekk juróom-ñetti junni ak fanweer ak juróom-ñaar euh, ñoom nag ñu leen séddale ci téeméeri sant ak juróom-ñeent. ñu interpellé ko ci problématique yi nga xam ne moom mooy wàllu kayitu juddu ci yenn candidat yi moom euh, ki nga xam ne nag mooy autorité académique de la région bi mi nga xam ne daal admile candidat yi nga xam ne ñoom amuñu acte d'état civil danoon amal yile examen. na ci candidat yoo xam ne amuñu kayitu juddu waaye nag loolu du leen tee ñu def examen bi ndax ci conseil présidentiel bi monsieur le premier ministre joxe woon ay instructions. ne ñu dem fexe ba régulariser candidats yi nga xam ne amuñu ay pièces d'état civil. épreuve examen yi nag danañ ko wéyandil mu war a jeex nag niki ci àllarba jile.